wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu delluwaate sant yàlla ci def lu ko neex dara du si sant yàlla ni ñu defee ay doomu aadama waaye sant ni ñu defee ay xeetu sidina Muhammad waaye sant yàlla bi ñu defee ñu bokk ci njabootu Mawlana Cheikh Tijani waaye di santaat yàlla ci ni ñu defee ñu aw moto bi xam ñu ci suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick waaye di santaat yàlla ci kàttan bi ñu may wér ak xel ak xalaat ak doole gi ñu ko mën a jaamoo ndax suñu junni junni morom ñu fi wax yëpp ko kon bu ñu ko yàlla xewalee jaamu mu sant ko di julli ci Seydina Muhammad mi nga xam ni mooy xaritam di soppeem te ku bëgg yàlla bëgg la da ngay bëgg Seydina Muhammad ku bëgg yàlla topp la topp Seydina Muhammad ku bëgg yàlla la da ngay faale Seydina Muhammad qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yàlla nee na su ngeen bëggee topp leen ma waa ji kooku mooy kan mooy Rasulullah kon ñoo ngi duñu dañ mukk di julli ci sang boobu tedd boobu xam ne julli ci moom la yàlla joxoon ci alquran ni moom laa leen xolloo wala fi rasulillahi uswatul xasana waaye julli ci moom gàttama ndax ci moom rek la yàlla julli ak inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi kon yaa ayuha wa sallimu taslima yàlla nee na yéen ñi gëm ñi gëm ndax na ñoo xam ne dañuy gëm gëm waaye gëmuñu yéen ñi gëm julli leen ma bi dañ bokk di julli ci sàng moomu di rasulullah di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu dolli suñu coxee ci moom dolli suñu bëgg-bëgg ci moom dolli suñu yaakaar ci moom ginnaaw bu yàlla wéyee bi jaay rasulullah tabarakallahu di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala di ñaan suñu sëriñ ba Mawlana Cheikh Tidiane yàlla yàlla dolli ko jéggal yàlla dolli ko yërëm Mawlana Cheikh Seydi Hadj Malick yàlla yàlla dolli ko jéggal dolli ko yërëm te di ko xew ci biir bàmmeelam ak mbooleem sëriñ yi ne ci biir suuf wa tabaarakallaahu ñaanal suñu xalifa général de Tijaan Sëriñ Babacar Sy Mansour ataala umruhu wa ayyadahu nasara yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla bàyyi ko fi mu rakkam moo ki yëpp yal na yàlla ko fi xalifa bu ñu tiitaloo la bu ñuy ndamoo tabaarakallaahu ci dal ci tey ci nopp dañuy wax ni bu wax day oor noppi jamaa la tabaarakallaahu yal yàlla gën a dëgëral ko yal yàlla gën a sàmm ko yàlla gën a wattu ci xëyu gi ci tàgg ci maandu ci xam lu war wax ko xam bu ko wax tabaarakallaahu di ko ñaan rek yal yàlla gën a dëgëral ko noonu yi nga xam ne xalifa général des mourides wa ayyadahu nasara ci yaatoom ci mbaaxam ci mën a defar di di ko ñaanal rek moo ay rakkam moo ay doomam moo ay njabootam yal na sama boobu di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem xalifa ci kaw suuf bàyyiwuñu kenn ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu tabarakallahu président de la République du Sénégal di ko naan yàlla yàlla doon di ko taxaw ko dëgëral ak moo xam ñu nekk opposition moo xam ñu nekk pouvoir yàlla yàlla sàmm rek di jaare nag ñetti journaliste ni ñoo faatu ci bi bi président dem nekk ci Leral TV di leen ñaar di ko ñaar di ko jàll nag heure presse yëpp bàyyiwuñu kenn ñoo koy jàll heure presse yëpp di la ñaan yàlla fi jëm yàlla ni yàlla na dàq fi ñu jógee fi jëm yàlla na dàq fi ñu jógee fekk na dee ne fu ko yàlla bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tabarakallahu DG mi nga xam ne nag moom si biir tabarakallahu ko ñaan yàlla guddal fanam yàlla sàmm ko ak tabarakallahu rek ñu dellu ci waat rek seen émission bii di Al Hilm wa Taalim nga defee fii Salam Vision bi chaîne YouTube mag bi nekk ci pandémie bi ñuy xam ak xamle comme ni ñu koy faral di xam ak xamle mu mel ni fa tabarakallahu tey ñoo ngi waxtaane tey li ni moom mooy al fatiha tabarakallahu fatiha nag bu ñu ko waxee yi nee na bismillahi rahmaani rahim di la am na am yoo xam ne waneen bu ñu jubli alhamdulilahi rabbil alamin lañu tàmbale bu ñu waxee te ko ñoo koy ba déew rek ngir imam Maalik da ko dàq mu ne ko waaye bari na fii Sénégal loo xam ñoo koy ngi woote na ci ngir imam Maalik Ndiassane ma posé woon question bi ne ko oustaz bu ma la béy ma ne ko ba xam ndax ñi topp ci néew bi yëpp ci ngir Imam Malik waaw ba xam ñu topp ci ngir ñu topp néew yëpp dañoo ci ngir Imam Malik ndax ñoo xam am ñoom tënkuwul ci ngir Imam Malik ñoo ngi ñoom ci xarafe ñu ñoom ci anbal ñu ñoom ci euh, euh, Shafia kon nga xam kon. nit yi ànd ak yow di julli yow nga yaakaar yéen ñaar yéen a bopp lu ngeen tënk fekk na mu def dara rek bul nekk lu def baaxul da koy laaj ba xam ndax foo ko foo ko teg boo la man ci ngir bi laaw teg moom waaye nga def baaxul li nga def war a ko a jóg na kon nit ñi tabarakallah yooyu dafa laaj settantal waaye bul tëb tëb rek ni li xaar na wala tëb tëb rek ni li dagan na parce que daal maa ngi ni ku peegul mbooleem xam-xam yi mbooleem sartu xamal boo ko peegul nee na waroo weddi kenn waroo kenn li ngay def def ko te maamu ci doomu aadama kon nag ñu bari nañu wax ni bismillahi rahmaani rek moom mooy lépp te am na yoo xam ne ñu tàmbale julli alhamdulilah am na julli wala amul julli ki tàmbale bismillahi am na julli wala amul julli kon nga xam ne kon wuute borom xam-xam yi la waaye nag bokkul ci luy yàq julli bokkul ci luy defal julli waaw kon xoolal bismillahi rahmaan rahim moo koy firi bismillahi maa ngi tàmbale sama wax ak sama jëf ci yàlla kan nga ne arrahmaani buur bi nga xam ni mooy xéewale ku ko neex ci kaw suuf yàlla mooy ay xéewalam ku ko neex la koy jox xool ku xool ku xool ku gàtt ki xool ku ñuul ki xool ku xees xool ku xool ku juddoo ku juddoo ci doomu yoon ak ku juddoowul ci doomu yoon xool ki nga bakkan bi ngay noyee ci la bokk bëñ yi bëñ yi ngay ci la bokk tànk yi ngay doxee ci la bokk nga xam ne yëpp bokk ni ci xéewalu borom bi subhaanahu wa ndax am na seen junni junni morom yoo xam ne yàlla xéewale wule loolu waaye bu yàlla xéewale loolu jàppal ni kon xéewal yàlla nawul ci koppar rek ak ak kër ak oto rek waaye arrahmaan may xéewal ku ma neex ko suuf arrahim yi may yërëm ku ma neex may yërëm ku ma neex may may xool ku ma neex yow ma xiyam ma la àjjana booba neexul mu mbugal la kon yàlla yàlla boole ci ñu mu neex ba ñoo boole ci ñu mu naqari bi jaayi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo cay teg alhamdu nga bi jaam bi cant moromu jaam moom la seydina muhammad waxoon ni la man lam ku santu yàlla doo sant nit ku santu nit doo sant yàlla kon ñaari cant yëpp yëpp yëpp dafay dellu ci yàlla cant bi jaam bi cant boppam bi jaam bi cant yàlla cant bi yàlla cant jaam ak ja ak jaam cant bi nga xam ni cant dafay dellu ci borom subhaanahu wa taala alhamdulilahi kan nga ne rabbil alamina yàlla mooy borom mbindeef yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwul kenn moo xam ku moo xam xar mi moo xam bëy bi moo xam giléem gi moo xam gaynde gi moo xam ñay bi moo xam kaña bi moo xam muus bi moo xam mbóot bi moo xam malaaka moo xam nit la ñépp ñépp ñoo ngi bokk ci genn buur lañu bokk mu borom subhaanahu wa taala rabbil aalamiina yàlla mooy borom bindee fii loo cay tegat arrahmaani moom mooy xéewali ki ka neex ci kaw suuf arrahimi moom mooy yërëm ku ko soob yow a loo cay teg maaliki yow mi diini ku moom bi si payoor ba bis nga xam ne ñëppay sëgg ñëppay sëngirlu benn yëpp dong moo fay tàllalu kan la ana ñu wóotu buur ana ñoom firawna ana ñoom kanaan ana ñoom lamur ana Abdoulaye Wade ana Abdou Diouf ana Senghor ana Bush ana Obama ana ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen tant de tant de tant de bu ñu taxawee wala xeer ñu xam ne dañ leen doon joxe naa leen ay buur ngeen waaye ay buur malik yi mu diini ku moom si payoor ba ñu ne iyaaka yow yàlla naa abudu yow la ñuy jaamu waaye nag wa iyaaka yow yàlla nasta'iinu yaa ñuy dimbali ko kon ñu gëmuñu li ñuy wax ñoo ngi jul di wax waaye gëmuñu ko tey bu ñu ñàkkee ñoo koy jiñ doomu aadama bu ñu amee ñoo ngi koy jiñ doomu aadama bu ñu feebaree ñoo ngi koy jiñ bu ñu wéree ñu jiñ ko yàlla waaye bu ñu ñàkkee jiñ ko jiñ ko nii dañ maa catul dañ maa liggéey dañ maa def lii maa def laa maa toppee ñii kay bëgguñu ma ñii kay lii kay lii fii lii fii atte borom subhaanahu wa taala xam ni yàlla mooy xéewal ku ko ne ci kaw suuf wa iyaaka nastainu amul kenn ku ñuy jaamu ci kaw suuf ku dul borom subhaanahu wa taala waaye nag ki ñuy dimbali ci kaw suuf du kenn muy fii muy yomal xam kenn dong muy mën a dimbali muy borom subhaanahu wa taala wa iyaaka nastain kon ihdina siraatal mustaqim yàlla ñoom lay ñaan nga teg ñu ci yoonu njib si yoon ba nga xam ne sax na gërëm nga ko ban yoon nga nekk siraat allazina an'amta alayhim yoon bi nga xam ne yaa ngi xéewaleel say doomu aadama yoon bi nga xam ne yaa ngi xéewaleel say jàmm ndax iblis bu mu paree yàlla ni ko ñii naa leen sant ñii naa leen def li ñii naa leen def li yàlla ilaa ibadaka muxlasina ba mu des jaam yi nga xam ni maa leen teel sama bopp sellal leen sama bopp kon siraat allazina an'amta alayhim kon bu ñu boole ci ñi nga mere ci ñoom wala daal ak ñi nga réer loo ca ni yàlla yàlla nangu naan ko koy def ay at te mënoo ci yoon kooku war ngaa xoolal sa bopp wala ñu ne julli boo ci nekkee nekk ci nekk ci bu yàggee boo nekkee ci lu bon da nga ciy jóge parce que ñaan yi ngay ñaan borom subhanahu wa taala la saa julli loo koy wax wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amin loolu bu ko dootoo jëw dootoo sàcc dootoo njaalo dootoo wax lu si yoon nekkul kon fa tabarakallahu moo tax inna salaata tanha an alfashaayi wal munkari su ko borom xam-xam yi waxee ci alquran borom xam-xam yi firi ko fa tabarakallahu loolu lañ jublu waaye dina leen kon yàlla yàlla mooy dégg ak toog yàlla def ñu dégg-dégg jullit ñaanal fi jàmm fa tabarakallahu yàlla sàmm nu yàlla wattu bi jaayi muhammad sallallahu alayhi wa mel ni tabarakallahu li ñu cëri la woon ci waxtu mat na di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala chaîne bi nga xam ne mooy Salam Vision yàlla yàlla yóbbu ko ci kaw ca kanam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñu daanal mu te nii suñu sëriñ boobu suñu daan boso nekk ba Mbàkke tabarakallahu nii suñu yaay yooyu mën a aada nii suñu jàllaan boobu xam ne tabarakallahu fan yi lañ ko may borom kër di ko mba suna di ko ñaan rek yàlla yàlla barkeel sëy madame Guèye yàlla yàlla taxaw na yàlla yàlla sàmm na ak